serait tamit une erreur de penser que ces pratiques de saaga là ci politique yi rek ñoom ñoo koy santaane affaire bi léegi business la dafay am léegi ñu nekk bitim réew ay nit nekk fii Sénégal boo bëggee yàq deru nit contacter ci kenn jox ko des éléments d'information mu attaqué yàq deru nit après ñu foog ne ndax président may ma benn parenthèse ak ñu foog ne ndax euh, politiciens yi la te parfois du politiciens yi euh, damay souligner lii rek dafa am ku may mettre en garde def nga ko benn yoon jël sama tur jox ko ces activistes là du ñu sax ay activistes ce sont des salauds ñu jéem a yàq sama der mooy les influenceurs voilà du ñu ay influenceurs influence da ngay influencer lu baax. bu bu bu ñaaraatee. dinaa la organiser campagne de communication mondiale boo xam ne. di nga génn réew mi te say mbokk dinañ am lu leen metti trop. parce que c'est trop facile bu ko defee dañuy foog ne ndax man ak waa Pastef la wala man ak politique yi la fekk ne nit moo nekk fii Ndakaaru commandité ay mbiram te li ñu xamul mooy ñoo ñu noonu bu buñ la boo boo leen loowee bu leen keneen fayee ñu saagawaat la.